sponsor yi gisatuñu leen. man nag côté boobu moom ci promoteur la. ok ñoom ñoo war a gérer ñu liggéey ak ñoom. Ah. waaw ah. parce que li nga maanaam dëkk laa ma jox bëri naa feex sponsor yooyu tey yow kii ñëwee fekk ko si un kii ñëw ne wàññi wàññi naa ko cinquante cinquante millions kii ne wàññi naa ko dix millions jox dootu jox dootu jox seen gëdd quoi. suñu mm. parce que nit ku ne li ngay liggéey ki fu la fay da. te su fekkee au milieu à la la la la la la tëggee saison bi yëpp si ak moom da ngay jaar si suuf ñëw wàññi wàññi nga saison lu a yomb lay war loolu kese la àdduna kon gars lu yomb te lu yomb nañu xool. Mm-hmm. te lu baax. noo gisee arbitre ak CNG. man de arbitre la àndal wax dëgg yàlla. da nga ànd ak ñoom. waaw parce que nit ngay liggéeyal ne fi war a am ay garante yu wóor mm. parce que de jii làmb dafa day waar arbitre wax dëgg la tey ñu man da ngay préparé arbitre pour am am coow gars yi la tëkku. yow wërës la jàpp da lay dóor ba nga nooy man la faaree sax wala ñu jam la. man sincère Alioune Sarr moom wax dëgg yàlla moom man da wax dëgg yàlla man personnellement. su ma seen bàyyi làmb ji. ndax lan. non parce que nga mbir soo si nekkee yenn at yi da ngay bàyyi keneen Alioune Sarr ëpp xel Sénégal day leer ko ëpp ëpp Sénégal xel ñoom ñoom la ëpp ñu xel tey jii dama ah, mbir dama àggee fenn yóbbu ko fa Alioune Sarr am na fa yóbbu làmb mais am na fa dafa àggee da ngay bàyyi ñeneen ñi ñiy màgg ñëw yóbbu ko Alioune Sarr ëpp xel Sénégal réew mi ñi ko ma fi nekkoon Senghor ki fi jógee après Abdou Diouf Abdoulaye Wade waaw Alioune Sall nag moom du buur nag man ne si laa ma ko fi continué kaña ba kaña ñun dama dama dëgg man personne man nee ma ay kuréel man sa Alioune Sall jox jox keneen quoi wax dëgg yàlla. kon si d'accord mu dem moom waay ma may fu man. may pay. Mm. waaw fu mu jógee si làmba ji jox keneen. waa gale quoi liggéey nag wax dëgg yàlla jàmbaar la mais ñun ñoo soxla mu changement ak waa ñu def changement. ñu xool ba xam. kon 109 bi d'accord nga ci ñu bees ñi. bien sûr waay. da nga xamul lool. Ah. Issa mbër mën naa yor CNG. ah man de du ma ko yor man CNG man du ma fi bokk parce que mbër moo gis xëy na ñi bokk ñu yem quoi. Mm-hmm. ñi bokk ñu yem. parce que yàlla daa mel ni wala wul. Mm-hmm. am na ñoo xam man nanga kaa yor commande dama ko mën a mais commande mënu kaa yor. mën na kaa yor. Ah. man de man du ma fi bokk may. Mm-hmm. parce que nekkal loo xam dafa yéeme. Cheikh Ndiaye dafa xel yéeme quoi. moo tax war na la xool ñu ngi koy jox ko jégal micro ah. war na la xool ñu ngi koy jox bu baax. waaw mais parce que mbër moom moo gis am na ay gaañu mbër am na ko fay mbër dëgg yàlla mbër mën naa bëgg seen semaine am na ko dafa war fee bokk waaw mais mbër yor yor bi lépp gérer dina yéeme trop du yomb ko du yomb. lépp ay mbër ñu gérer ko du yomb de mën na see bokk nag. mais bokk ci lépp mënta ne yar lépp mbër kese yar nga non non man àndu ma si. Mhm. Alioune Sarr daal na fi jugee. Mhm. keneen ne fi mhm. jox ko ko. waaw am na solo Issa. su ma nee per per kii te nekkoon Maasir waaye te nekkoon ju ju jaajëf ko. kooku man. président des jeunes président des amas. kooku kooku mën naa waaw. mën na kaa yor. xam naa xam naa qualité sama xalaat boog man ak si lu ma gis man kooku doy na doy na la waaw. su ko yoroon tey dina avancé. Tyson gars yi seen xel yi ñu ngi naan Tyson. Tyson mën na kaa yor. li tax nga ne mën na koo yor. personnalité am ak nit ñi tam. ak jullitam mën na kaa yor. ok am na wax ni foo jox ko ragal yàlla. ok ak góor. ku ragal yàlla nga rek du baax. ok nga mel ni ah, nga nekk ñu jox la ab banque ne nga ne directeur bi doo doo yàlla rek yaa gën a xam. Mhm. waaw. est-ce que tey d'accord nga tey bii tey waaw demoon ba suñ papa Alioune Sarr jóge fi waxuñu ko quoi mais dañuy jox exemple. waaw lan lay proposé ñu bari ñu ngi naan affaire vote mais yow tey lan lay proposé. man li may proposé a mooy ñu indi ji na yi moo yàq làmb ji. quatre appuis waaw. sama kan indi nga ko si indi làmb yàqu. ñu génnee quatre appuis ci làmb ji. mbañ am bu dóor bu nga tëdd ñu bay raam mais làmb ji ma si indi la làmb yàqu hmm. parce que benn làmb ji léegi da ngay def trois bis nii la daanu nga. amateur amateur la perte amateur même bëri gañewuñ dara. làmb da nga laa war a da laa ba ba jaaxaan ba jaaxaan toog seen mbaax wala ñu ngi lay def ñu soog a joxe victoire mooy yoon parce que ay millions a miti. kan ngaa leen romb fit man d'accord naa ku ñu toog si biir loolu toog sa ginnaaw daanu wax ku bëgg nga ñëw ma d'accord naa si biir. ah loolu doo ñëw ba nga tëdd. Ah. ñu ne ñu daanu nga daa yomba. ñu def ay million waaw ñu def waaw ah, ñu def ay million loolu dafa yomba nañ dindi loolu kon ñun ay góor yàlla na nopp gëlu saf saap rek kaan yi dóoram tëdd tëddal sa bopp ni ki mu wax si bi li fi am mm-hmm. élément bi waaw loolu mooy yoon da nga war a ba àgg suuf tëddal ñaar ñu soog a joxe bi parce que gars fay fay dagg seen biir mm-hmm. ñëw rek ñu naan leer naa leerul ay laal naa laal loolu amateur perte ndeysaan. ku ne sa xel nañ ci MMA. bien sûr yàlla baax na ko aw baax xam nga li ngay la dëgg jarul wax quoi. yàlla yàlla may ñi ñaan yàlla affaire bi yàlla fi jige dañ mm-hmm. suñu bopp si nekk bëri na quoi. ñu jëriñ suñu làmb làmb nag làmb ñu ko may mais suñu bopp waaw léegi nga dem di a xalaat si léegi si xel di gën a màgg àddina moo demee noonu quoi mm-hmm. waaw. Issa sa relation ak rek ndax gis nañ ni jeune la boo xamante ne ñëpp instant bi ñu ngi koy bàyyi xel ñu bari sax ñi naan am nañ yaakaar sax euh, caaroy am roi des arènes te ñu bari teg nañ ko seen bët ci Reug Reug sa relation ak Reug Reug ak ay qualité am. waaw ah, Reug sama boy la sama rakk la di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla roi des arènes kon yeneen booy rek ñu nekk rek yaa ngi dégg ak sama boy yi nekk fii booy àll gi sama boy yi waaye yaa ngi dégg yaa ngi suñu borom def champion mag a mag mm-hmm. yaa ngi ah. noo gisee rek allah yàlla nga yàlla fa car rek. Oh, champion la di am dara ci làmb de incha allah rabbi. na mm-hmm. gars yi jël moo gën. comme ni quoi ah eh, saa kees na jël avance am saa kees moom ñu ngi siy wax. Mm-hmm. parce que gars yi jël avance am waxeer bi. Mm-hmm. laam na gars yi bàyyi na gars yi bàyyi moytu moytu bëri bi loolu ñàggal sa bopp la quoi. waaw mbër noo gën sa bopp dëgg. gëm ne si yow xam ne yow dara la yow. boo waaw ah, affaire roi des arènes nga dégg gis nañ dégg nañ suñ papa Alioune Sarr ci wax. Alioune Sarr wax. dégg nañ sax mu ciy wax que roi des arènes depuis euh, maa nga euh, ba léegi reconnaître ñu roi des arènes ndax da gis kaay gars yi gis ñuy bëre fii chaque jour ni nekk fi roi des arènes gars yi di mais ah. affaire roi des arènes noo gisee. ah bu fekkee ku ku daan mooy roi des arènes ku la daan itam roi des a mais dama la. Ah. man roi des arènes sama xalaat bokk. fekkee dañ ni Balla mënuloo ñu dànk kon mënuloo roi des arènes ka mën a woowee Eumeu Sène nekk roi Eumeu Sène su fekkee jëlee si Bombardier roi des arènes bi. lu tax ñu koy ñu koy koy roi des arènes Bombardier la daan kon mënuloo si daan Eumeu Sène tam am na droit ñu woowee roi des arènes am na jàpp ne roi mais roi sama xalaat bu man sama xel mu gàtt sama xel roi da nga benn drapeau ñu mbër yëpp ñu daan yëpp ñu def ko benn tournoi ñu xool waaw. ñu indi ndaanaan yëpp. ñi fay kase yam kese xaalis mais titre bi la ñu xool. ah du xaalis kese. champion dëgg la doo xool xaalis xoo tiitir tiitir moo moo ëpp doole xaalis bi. ñi gën seen bopp dëgg ñi fa laaj kese kese boo xam ne da nga a préparer sa bopp rek. CNCR tëgg ka micro. lii drapeau bi par cinq ans da nga bëre. ko jël sa weer da lay fay ba cinq ans di ñëwaat ñu bëre nga ñu xool. ok bëri bëri yoo nii ah nan nga dañu xool ba xam. pour tey jii dañ naan yëpp defal leen benn tournoi. deux jours. Ah. daf ko sam daf ko dimanche. Ah. ah kon dina bëri ñi génn ci de. di nga bëri ñu dul génn. dina bëri ñu génn ci bi kon ñu daan de. Mm. waaw. Issa Pouye mës nañ koo atteindre mystiquement ci làmb. li ñuy atteindre. Issa mës nañ koo jàpp gàllaaj ci làmb. ah ba ba ñuy bëri ba ñuy jàpp mais bëri bëri bëri da xam nga làmb nekk mënu kaa wax da ngay muñ yàlla ni yàlla nga yàlla may daan na mënoo saleté bi defati jàmbur quoi. man boog man. billaahi wallaahi yàlla kaa damay wax man comme ma daan xam naa damay daanu man. Serigne moo la ko wala. damay xam ni man damay sama yaram mi xam naa ni man maa daan nit. ok billaahi wallaahi. saa fi mu nekk rek noo koy daanee moo may jaaxal. waaw yow maa maa daan su nekkee sëriñ sëriñ danaan la Issa tey da ngay daan wala yow yaay toog di. da ngay xam ni yow da ngay daan yow mbër mi su fekkee loo xam dëgg da da ngay daan tey da man ko ci gàllaaj man bugguma ko sax moom mosoo dégg Issa da da ma koy ma ñëw mën ko dàq kaa ma daan ko mais ay saaf ma ko def toog la bu lu yow ko may bu ko yow bàyyi ko mu nekk bàyyi ko mu yëngut si laa gën a kontaane man pour yow ku may bëri xaatuma ko sax pour lan. kon loolu neexul dama bëgg nga nekk parce que amaat ba sa fan si xam ne yow dangaa nekk. Ah. moo soog ñëw daal la. ñu lay yeew te doo yeewaate. bëgg waaw ah, ñoom waaye man wax ne fan. bëgguma lool. ma ndam mais bu du la. Hmm. mosuma kaa def mais xanaa léegi di nga ko fokk parce que comme combat yi nga bëri yëpp mystique xanaa léegi di nga ko boole ñaanlu mais dama la du ma yeew kenn dinaa ñaanlu daal si kaas suñu borom mais dama yeewlu kenn hmm. incha rabbi Issa yooyu ñëpp xam nañu ne daanaan nga ci bëre ci lépp. waaw tey dama bëgg euh, euh, cinq mbër yoo xamante ni. waaw seen qualité. seen qualité. waaw te ku ci mel ni Eumeu Sène. monsieur champion la. waay mm. Balla Gaye seen qualité ci bëre. waaw macha allah bërekat nga. tey su am tey ji gën yàlla. Mm-hmm. nekk am gëm-gëm nag. Mm-hmm. am gëm-gëm. te gëm la. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. waaw parce que te amoo gëm-gëm. Mhm. kenn waxatu ko. waaw. ci côté bëreem. ku mën a bëre la macha allah. mën a bëreem cest à ci clem ah? clem wala. côté yëpp monsieur ndaanaan la champion la mën a bëre la. champion la loolu moom nekk sa nii laa laamee. waa yaa ngi dégg. la. waaw xeronte ko sax. Modou Lo. champion la noonu ñoom ñoom ay champion la wax dëgg yàlla ñu ngi lay fi ñoom ay champion la. Mm. ku nekk amul yoo xamante ni Issa yaa ngi koy gis si ñoom. waaw dëgg ma la lépp lépp lu ne si mën ñu ñoom xam nga làmb kenn mën kenn xam la moo si biir bi sa biir la nga daan ñooñu nga gis noonu lim noonu si làmb ji koo daan mën na laa daan. ok da ngay am tey sa bis si suba nekk na bis a koo fi daan mën na laa mm-hmm. ji am na daanaan. làmb ji mbëri yi bëri ay naanaan yaa ngi dégg. war yi bëri yëpp ay ndaan la yaa ngi dégg waaw. Mm-hmm. ci bëri yëpp ay ndaan mais dama la koo fi daa mën naa daan dégg man la. daa mm-hmm. ma ji. Mm-hmm. yaa ngi dégg. koo daa mën naa daan. parce que trois ans ba kan nga ji ko téye dix ans kon da nga ay yëg ni téye woon ay mànga. xaa nga téye ko bañ a bëri. Uh-huh. xaa nga bokk ko nii ne bëriwul ma kenn. ma ne doo ko téye nii doo ko bëree nii bëree ñaar ñett ñett ñeent wala ñeent jàmbaar nga de. su ko yëgee ñu téye woon daal dama la xam ne kenn mënu ko fee téye kon gars yi yëpp lay paasante. damal la. roi bi ku ne dina ko ñam. si kàddu suñu borom. incha allah te isa dina ñam roi bi. su ko yaa dogalee xam nga àdduna moom lu yaa dogal ak lu yaa dogal bokk mais su ko yaa dogalee. ñi nekk roi dana maa gaa maa dàq bëre. man ñoo ko nekk man naa kaa nekk loolu kay ma ren sax. Mm-hmm. waxatuñ ko loolu. Mm-hmm. ndax kër yi ñuy ne ñoom mu ngi si man. xam ne am solo mooy. suñu borom dogal ñu xaar rek. Mm-hmm. waaw. beneen bi mooy écrit Thiaroye xam naa ne foofu la ñuy terminer ñu gis ne Issa. waaw Thiaroye ñun ñëpp ay lébu ngeen ñu sa écurie yi dafay bari. ci noonu kenn ku nekk ak sa écurie bien vrai que nag gis nañ sax léegi ngeen formé comme ab association ngeen formé xaw ma lan ngeen fa mais gis nañ ne daal yéen kenn ku nekk ak sa écurie. xëy na caare nga yëpp yéen xëy na caare nga yëpp pig ñaata écurie de. ci na ah, a da ngeen a bokk quoi. xaw ma nu ko waxee. naan naan. c'est-à-dire ay lébu ngeen. waaw d' accord normal la ba dafa jege. xam nga entraînement ñi ma ñu bokk fi ñu entraîné léeg-léeg ñi dañuy sorante loolu ko waral mais gars yi benn man am na ñoo combat mais ñëw rek ba am ñoo ñëpp si am combat da ngay ñëw yaa ay booy ku ñu am combat ñëpp ay ñëw yàlla xam na loolu mm-hmm. booy yi dañuy ñëw di jàppale booy yi fi booy itam jéem a ñu jàppale c' est que maanaam man ñu sëgg dajoo la parce que seen lii ñoo sorante quoi distance am distance. ok loolu ko waral. Ah. distance bi sori quoi. Ah. mais gars yi benn man da amu si benn problème mbër yi fédération yi am am nice quoi te ñëpp seen combat woo ma dama lay jàppale. Ah. est ce que yaa ngi xalaat un jour ngeen boole écurie yëpp. mu doon ngeen écurie waaw ngir caare si lépp turu caare benn caare mooy moo fi ne ngir caare sur mer moo moo fi ne fi ne nii. kese kese. amatul écurie bàyyi ma. non non ngir si li moo fi ne. Ah. kontaan nañ ci yow. lim bi à sa fin lan li ngeen nekk yàlla jàppale leen su bu baax a baax. ngeen dama am seen télé yàlla na ko sa borom defal di ñaan réew mi jàmm di ñaan seer bi fi dugg nii yàlla na ko sa borom jëlee kon ñëpp ñu mën a kenn foofu ñu tuub ci xel jëm ci yàlla yàlla jéggañ ci ni bàkkaar jële seer bi fi ne te ñaan yàlla ci barkeem tu sallallahu alayhi wasallam waaw jërëjëf merci l' émission sa fin euh, tey nag ñu daloon ki nga xamante ni moom mooy euh, Issa Pouye mu nekk champion boo xamante ni kenn du ko présenté kenn ndax nee naa leen tey ku def 18 victoire am 5 défaite kooku dafa bokk ci làmb di wax nag gars yi nañ ko bàyyi xel parce que nekk na koo xamante ni nekkatul n'importe qui ci làmb li mu fi wax nag pare na pour may booy chance pare na pour bëri ñaam te ñoom ñoo nekk ci kaw parce que làmb moom may métier am di ko remercier bu baax a baax ci disponibilité am kon ni ma koy defee rek à chaque fois ah, di béggeewaat nag bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy sama séeréer bu nice bi muy Basirou Diouf lay fatigable di ko nuyuwaat bu baax a baax naan ko kontaan naa ci yow nee naa la yow moom wax dëgg yàlla dama lay ñaan rek yow guddal fan amal wér di bëggewaat bu baax a baax képp koo xam te yaa ngi ñu suivre sur wasaare lamb wasaare TV naan leen gis nañ leen yéen a ngi jàpp ci bagage yi bu baax a baax a baax ni ngeen ñi teeroo kontaan nañ ci yéen bu baax a baax loolu jàmm-jàmm ko gën yal nañu yàlla may jàmm mais Bassirou damay nuyu koo xam te ni sama góor la sama xarit la muy baara boroom géejawaay mu nekk koo xam te ni ku nangoo sonn ci man nekk suma doomu ndey nekk suma lépp di ko ñaanal gudd fan wér naan ko confiance bi nga am ci man yàlla bu mu tas conseil yeeg yëpp gis naa ko naan la nag maa yow suñu relation am na commencement mais amul fin di bëggee ñëpp ñëpp ñëpp waa Europe ah. gis nañ leen yéen waa diaspora bi du ma lima ah ku lim jum yéen ñëpp kontaan nañ ci yéen di bégewaat nag ñëpp ah naan leen nii rek la ñuy def tey nag ci gaag yi lañ dugg bëggoon nañoo dem ci kii mais damaa ragal quoi isaap yi dama koy teel a kii sànjaafu dama ragal <laughs> waaw naan leen xam naa beneen yoon incha allah dañuy dem ci géej gi ndax xam rek situation oblige quoi ndax comme que feebar beeg yooyu noonu waa dañuy dem ba gore ndax sama cameraman buggoon na ko bas waaw mais nag garaawul nii la ñuy def rek waa di xool lépp loo bëgg rek dañ ciy dox yéen a ko tàmm tànnoon mooy Issa Pouye mi ngi nii après nag beneen mbër bu tànn rek ñu indil leen ko ba mu neex wasaare lamb kese Fatima kese deen jaajëfal bas ñu continuer dama kontaan continuer ah. <laughs>